fa jaat te dikk na al aqsa mu xaaj ya xaqal ci dëgg-dëgg arbaxata mbir mu ñuy ñeent waxiya te ñoom subulul man faxa te ñoo di yooni njariñ li saalik ñeel aju soobu yoonu yàlla kon nee na boo ko dee seet ñeent xaaj lay doon ndax moytu gi la yàlla aaye da koy def ci bitti def ko ci biir muy ñaar topp nga ndigal ba tey da koy topp ci biir topp ko ci bitti itam xam ne kon moytu nga leen tere mën naa amee ci zahir mën naa amee ci baatin muy yaar topp nga leen digle itam mën naa amee ci zahir mën naa amee ci baatin kon boo boolee loolu muy ñeent moo tax mën naa ñeenti xaaj la yoo xam ne daal boo ko dee seet ci dëgg-dëgg mooy yoonu ku jëm ca boroomam mooy sax ci lépp luñ digle mu topp ko biir ak bitti lépp luñ aaye mu moytu ko biir ak bitti moo tax am na koo xam ne wa ma ata bihi rasulu fa xusi wa ma naha hanhu fa daxuwam bisi xodita li taqwa fa daaka subluha wa baabuha wa farxuha wa asluha ko defee nag mu jàll ci wax ni nga xam ne moom la war a sàmmi ay cëram bañ caa mooy yàlla yaxuddu dana damm xëy na foo bëtam ba xanil ma xaari mi walis way araam ya yakku fu dana fekk sama xaxoo noppam ba xanil ma aasi mi walis bàkkaar ya ka xiibati ni ki jëw namimatin ak rambaaj zóorin ak seere neen kasibin ak aw fen lisaanu xoo làmmiñam nag axraarawanti na bitar ki maa ci bàyyi la nga xam ne julli ba bi jéef na ko daa tàmbalee ci bët mu ne na sàmm ay bëtam bu baax a baax bañ caa xool luñ araamala xool mbaa lu ñu siba xool teg ca nopp yi na tey ay noppam bañ cee déglu dara lu araama déglu mel ne jëw mbaa rambaaj mbaa fen mbaa déglu kuy seere lu mu xamut jour seere neen mooy seere loo xam ne wóoru la doon ci sax far na dëppoog la am itam rek ñeme yàlla tax muy seere waaye xamutoon ne dëppoo naag la am du ko tee araam te sañu su ko déglu rawante na nag di ko wax ci saw làmmiñ moo tax mën naa yimu la aaya ne bul ko déglu ci sa nopp rawante na kon nga di ko wax ci saw làmmiñ buñ ne war nga buñ ne war ngaa sàmm say nopp ba doo ko ci déglu kon dañoo jëlale làmmiñ wax yaxfasu dana wattu battanahu biiram ba minal xaraam yi ci aji araam yettul ko dana bàyyi maa lépp loo xam ne shubbiha lëntaleef na ko bi ihtimaam ci yittewoo dafa jàll si ci biir dangay sàmm sa biir moytu ci def dara lu araam mbaa lu ñu sib lépp looy jëfandikoo rek mu wóor la ne lu lew la lu lënt mooy li nga xam ne boo ko dee seet ci wet day mel ni daa dagan ci wet mel ni daa araam ne kon man mel ne màndargay dagan ak màndargay araam lu ca nekk da caa feeñ lu mel noonu nag ku yebu rek moytu ko ndax boo ko toppee mu far la yóbbu ca lu araam la na ko addis ba waxee yax fasu dana wattu farjaxoo ab sawukaayam waye taq yi te muy ragal ak shahida yàlla mi aji seere lépp fil bat si ci ngëb ga mu dellu ca loxo war sax yi ak dox ga li mam noo in jëm ci lu ñu tere yuriidu loolu dana ko namm bokk na ci ñi mu kaalaf war a sàmm ab sawukaayam bañ koo dugal fu mu ko warta dugal bañ koo feeñal fu mu ko warta feeñal mbaa lu mel ne loola te muy ragal yàlla fu mu toll ci yóotu ci loxoom mbaa ngëpp ci loxoom loo xam ne sañu koo laal wala dox ci tànkam loo xam ne sañu koo dox way wax yi fi tam yi taxawal al umura mbir ya xataa yaalama ba dana xam maa la nga xam ne allahu yàlla xat xakama àttina fii na ñoom mbir ya bii ca loolee bokk na ci nag li war ci mu kàllaf mooy menn mbir mu ne bala caa dugg rek xam la ci lislaam wax maanaam sañu fi song benn mbir ci wàllu addunaam mbaa wàllu lislaamam loo xam ne ni xamul la ca lislaam wax su ko mënee gëstul bopp mu baax na su ko loolu jafee nag mu laaj ko koo xam ne ku xam la te amul maandu lu mu ko ci wax rek mu topp ko waaye suñu te jekki-jekki dugg ci menn mbir te xamut la ca lislaam wax yu taxiru day laabalit alqal ba xol ba bina riyaay ci ngistal wa xasarin ak kañaan xojibin ak aaw wa kulli daayin ak jépp jàngoro nee na boo sàmmee say cër ci zahir bañ cee mooy yàlla xol bi itam da nga koy sàmm ci baatin lépp loo xam ne yàlla bëgg koo gis ci sa xol ngay moytu mu gis ko ci sa xol mel ne ngistal maanaam jëf-jëf joo xam ne ngir yàlla taxut nga di ko jëf maanaam yàlla kese kese taxut bu yàlla kese kese rek taxee moom mooy sellal te moom la yàlla bëgg bu ci dara raxee lu bokk te yàlla rek mooy ngistal ba tey kañaan na ko moytu mooy am ku ku am xéewal te moom yéenewu ko xéewal ga loolu nag bu ca boole di ko waxee ca làmmiñ wa mbaa mu koy jéem a jëfee ci cër yi moom mu araam araam mu jéggi dayoo bu fekkee ne nag yéenewul sax borom xéewal gi xéewal ga waaye ci xolam rek la ñàkk gaay yéene nekk te it naqari na ko bu sañoon yéene ko ko loolu kenn du ko ko jàppee waaye daal sa xol seen wecc daal nga yéene ñëpp lu baax di waxal ñëpp lu baax defal di defal ñëpp lu baax daal loolu bokk na ci màndarga yi ku nar a texe fii ci àdduna ak ca ak ca àllaaxira xojubin ak aaw aaw mooy naw jëfam loolu na ko moytu bu baax a baax jaamu bi yàlla lépp lu mu def ci wàllu yàlla da ko war a xeeb waaye gis boppam dara ci xam-xamam baa jëfam ëpp naa def te bu ko seetloo sax du naw boppam ndax jëf ji xam-xam bi yépp yàllaa ko awale ci moom rek waaye ci dëgg-dëgg moom jëfut yàllaa jëf loo xam ne bu sa jëf dëgg-dëgg nga ko jëf lañ ci war a naw te mooy yàlla waaye war laa naw sa boppam jëpp jàngoro joo xam ne rek dana nekk ci xol te yàlla bëgg ko rek nay moytu yàlla gis ko ci xolam kon fexee sell biir ak bitti rek loolu mooy wàllu tasawuf waalam na nga xam nag bi ànd asla dil afaati ci naka cosaanal yi lay gàkk xoppu riyaasati mooy sopp ak kilifteef wa taraxul aat yi ak wàcc aji dikk ja muy alaxira rasul xataaya bopp ñaawteef yi daal moom xoo moom xubbul xaajilati mooy sopp àdduna te lay sa dawaa dir saafara loxoo di ko ñeel illaa fil idtiraar yi ndare muy nekk ci ak loru loxoo jëm ci yàlla xamal ne nag nee na li gën a yàqal nit te gën a mën a tilimal xolam rek mooy bëgg kilifteef ak bëgg àddina wàcc alaxira su ko see bëgg kilifteef ci àdduna moom li ci faaw mu añaan faaw mu ngistal faaw mu indi yeneen jikko yu bon a bon ni ki rëy yenn ni ki rëy ak yeneen ak yeneen nga xam ne kon daa mel ne bëgg àdduna moom ci la ñaawteef yi bare bari di sababoo dañuy wax naa sax dañoo fekk lépp lu bon ñu def ko cib néeg tëj nee ba caabi ja ko ubbi nag mooy bëgg àdduna fekk lépp lu baax ñu def ko cib néeg tëj ko caabi ja ko ubbi nag mooy sopp àlaxira wan gannaaw àdduna mu ne nag koo xam yëg na ci xolam bëgg àdduna googu mbaa xeeti ñaawteef yi mel noonu daal na xam ne des na ko faje sax jéem a jihaar ak bakkan waaye la ci gën a gaaw rek mooy dellu ci yàlla ñaan ko mu tàggale ko xeeti bon bon yooyu ndax ndegam moom lépp ci yàlla la aju leen lu nekk mooma su delloo ci yàlla rek toroxlu sàkku yàlla tàggale ko yu bon yooyu koy tee mëneeg moom rek yàlla mën na koo baaxe tàggale ko yooyu mu daal di mëneeg boroomam ndax yàlla moom lu mu yombal rek mu yomb lu mu jafeel tam mu jafe nee nañ ne koo xam ne womat bakkanam da koo jafe bakkanam da koo mën daal nay bari la wax xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ak laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim yasxabu dina àndaaleeg cheikhan ab sëriñ xaarifal masaaliki bi aji xam suubukaay ya yaqiyi ko dana ko fegal fii tarix yi ci yoonam wa almahaalika xeeti alkande ya su fekkee jamono ja nga nekk gis nga fa sëriñ bu mat sëkk ab sëriñ moom nga dem ànd ak moom mu teetu la ci yoonu yàlla mooy gën a jàppandi ci yow di jéem a aw saw yoon mbaa dara ndax kooku moom daa aw ci yoon wa ba xam pakk ya dem ba àgg kooku nag moom boo ànd ak moom moo lay teete nga dem dem bu gaaw a gaaw yurdu ci ruxoo dana ko fàttali allah yàlla idaara aahu ndem gis na ko way wasilu te muy àggale alxamdu jàmba ilaa mawlaahu jëm ci boromam ba nee na nag sëriñ dëgg-dëgg day doon koo xam ne boo ne ko jàkk rek sam xel dem ci yàlla nga xam ne gis ko rek ne ko jàkk dalay fàttali yàlla bu waxut jëfut nga gisit gis nga nga ko gis rek dalay fàttali yàlla ku mel noonu nag moo lay mën a àggale ci sa boroom ci lu jàppandee jàppandee yu xaasibu dana xisaabit an naf sa bakkan ba xal anfaasi ca nooya way yosulu tamit peese alxaatira xalaat ga bil xistaasi ca balaas ba nee na itam nag ku bëgg a soobu yoon yàlla day xisaab boppam bala ñu ko xisaab bu ëllëgee te loolu mooy bis bu ne muy seet ba xam taxaw na ci la ko war lépp wala taxawu ca su gisee ne bakkanam taxaw na ci la ko war dëgg-dëgg kem kàttanam mu sant yàlla dafa seen loolu yokk jëm ci kanam bu gisee genn gàttañ lu mu fas ko yéene dabaatal te yedd bakkanam fa seen loolu bañ amati di ko taqoo rek noonu saa yu nekk te itam xalaat yi nga xam ne mooy toq ci xolam mu di ko seetlu lépp lu ne toq ci xelam rek mu seet ba xam bu dee lu yàlla gërëm mu gaaw jëm ca bu dee loo xam ne yàlla gërëmu ko mu gaaw sori ko ndax xalaat moom des na ko yeex a bindal kenn bàkkaar sax waaye day def nit li muy xalaat da koy jiñax ci jëf lu na mel ndax booy xalaat lu bon xalaat ga mën na laa yóbbu ci jëf ko booy xalaat lu baax xalaat ga mën na laa yóbbu ci jëf ko moo tax nag lu ñu toq ci xelam rek na ko gaaw a seetlu fi saasay saasa bu dee lu mat a jëm mu jëm ci ànd yéene bu dee lu mat a jëm nag mu daal di koy gaaw a sori wa yaxfadu tamit wattu almafroda la ñu farataal rësal maali mu mel ne mooy capital ba wan naf lu naafila ga nag yuwaalii dana sësalee rifaxoo bénéfice am bi ci moom da ngay farlu ci nee na li yàlla farataal ci yow jàpp ko muy sa capital boo doon def commerce su ko defee nag xeet naafila yi nga baril ko mel ne mooy sa bénéfice xam nga tey boo doon commerce sonn ba noppi amoo lu may capitalu kese dara dara topp ca loola du baax ci yow ba tey nag yem ci farata ji kese baax na boo ko defee sajaan wàcc waaye nag fexe ba dolli ca ay naafila yu bare bari ndax yàlla dolli laa gërëm moo gën ndax xadis ba daal wayu ko si tamit baril ak zikra tudd yàlla ga bi saf wi lubbi yi ànd ak seetlu xelam ma ba tey nee na nag ku sóobu ci yoonu yàlla day bari la tudd yàlla tudd yàlla nag ga ci gën mooy wax ko ci làmmiñ wi te di ko teewlu ci xol bi kooku moo féete kaw ba ca sësaat nag mooy di ko teewlu ci xol bi te làmmiñ waxul dara bi ci gën a woyof nag kon mooy maanaam bi ci gën a suufe nag mooy tudd ko ci saw làmmiñ dong waaye mooy mëtt xeeb ndax boo ko barilee mooy indi tudd xol ba maanaam booy bari la tudd ci saw làmmiñ day mujj xol bi di ko teewlu bu ko defee rek nga mujj boole yaar yëpp buñ ne tudd yàlla nag moom jàng alquran ak jàng xasida ak xeeti sikkar yëpp rek dugg na ci walhamdu ndimbal la fii jamihi za ci mboolem lii bi rabbihi nekk na ci boroomam waaye nee na lii lépp nag xëy na lu jafe la mën na laa tiital waaye da ngay doyloo yàlla te sukkandikoo ko rek te sàkk ku mu dimbale la ndax yàlla moom ko mu téeñal rek yan ba woyof ak yu jaaxidu dana jihaar ak an naf sa bakkan ba di rabbin xaalamiina ngir buurub mbindeef yi nee na kuy wut yàlla kat day jéem a bërenteeg bakkanam di ko génne ci lépp lu yàlla gërëmut di ko xiirtal ak a sonal ci lépp lu yàlla gërëm lu koy tax a mëneeg boromam rek mu ciy bës ba kanam lu koy teye mëneeg boromam rek mu di ca mu di ca soril ba kanam waaye taxallaa te muy takkaayoo bi maqaamaatul yaqiini ci maqaamaatul yaqiin maqaamaatul yaqiin mooy maqaamaatu ahlil yaqiin daa bëgg a wax ne su bëri ba kanam ba set ci lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko day jéem a takkaayoo nag daraja yu baax yi nga xam ne ay melo yu baax la ay qualité yu baax la yoo xam ne ñooñ yàlla yi am yaqiin am daraja fa yàlla ñoo koy melowoo te mooy yi mu boole ci way wi du ko boole ci xawfun raja shukrun wa sabrun tawba suhudun tawakkulun ridam mahabba xawfun mooy ragal yàlla raja ak yaakaar maanaam boole ragal ak yaakaar day ragal mbugalum yàlla ak meram ak metitaram bu ëllëgee te yaakaar itam nag njëgalam ak yërmaaneem ak ajanaam maanaam ragal ak yaakaar dañuy yaar yoo xam ne dañ leen a war a boole ndax bu ragal ëppee kooku day naagu ne du am mukk yërmaande bu yaakaar ëppee itam day mujj mu defee ne kon moom mucc na ba noppi dara lu muy mucc rek mënu koo dal bu ëllëgee te kon def bàkkaar ak lu yàlla bëgg da ko yomb kon nag ragal ak yaakaar daa war a nekk ñaari balaas ñoo xam dañuy yemoonte mbaa nga ne daa war a nekk ñaari laaf yoo xam ne jul bi da ko war di naawe shukrun mooy sant yàlla sabrun mooy muñ sant gi mooy lépp li ko yàlla xéewale mu jëmale ko ci la yàlla gërëm te saxoo tagg yàlla ci aw làmmiñam ak mooy lu ko yàlla xéewale rek da ko jëmee ci la yàlla bëgg bañ ko jëmee ci lu yàlla bëggut muñ nag mooy lépp lu ko yàlla teg muy tiis muy nattu rawante na xeeti mettiiti jaamu yàlla yi lépp lu ñu muñ rek daal mu di ko jéema muñ ngir yàlla loolu mooy sabro tuub nag waxal na ko léegi moom moom la njëkk woon ci bunt bi fu mu toll di tuub te tàmbalee ci moom sax tuub la ñuy tàmbalee waaye moom da koy saxoo rek du ko bàyyi fu mu toll di tuub ndax ab jaam boo xam ne du jàdd daanaka amut jàdd yi ëppante rek mbaa boog dana dem ba gàttañ lu gàttañ lu goo xam ne gu mat a tuub la dëddu àdduna mooy xolam bañ a jëm ci àdduna doyloo ci rek la nga xam ne mooy ci mënta ñàkk lépp lu lépp lu nar a dox digganteem ak boroom rek ci àdduna mu wan ko gannaaw loolu mooy dëddu àdduna wakkiilu ci yàlla mooy fu mu toll di sabablu di góorgóorlu te yank nag yàlla maanaam jàpp ne yàlla moom lépp mooma góorgóorloom googee du rek moo koy may mbaa ak dawam rek moo koy tax a mucc du tee nag mu farlu bu baax a baax ci lépp lu koy may ngërëm mu taxaw ca temm lépp lu koy xañ ngërëm mu sori ko ba noppi nag yank ci xolam ne yàlla kat moo ko mën a may lee mu bëgg moo ko mën a musal ci lee muy daw ridan mooy gërëm lépp lu yàlla dogal ci moom rek mu neex ko mahabba nag moom mooy daraja bi ci mujj te amul yemukaay maanaam mooy sopp yàlla moom mooy mooy daraja bi nga xam ne moo moo ci féete kaw sopp yàlla sopp lépp lu yàlla sopp ak képp ku yàlla sopp moom nag moom amul yemukaay daanaka buñ ci àggee dañ ci rawante lool lool ak sax ji ak yépp sax waaye moom moo ci raw daal yas duqu dana dëggalal shahidahoo yàlla mi aji seereem ko fil muamalati ca jëflante ga yaru daa dana gërëm bi maa ci lépp loo xam ne xaddarahoo dogal na ko al ilaahu buur bi lahoo ñeel ko nee na day farlu ci xam ne yàlla lay jëflanteel lépp lu muy jëflanteeg yàlla rek mu ànd caakuk dëggu fexe ba la muy def dëppoonteeg na ko shariha rëdde ba noppi jëm yàlla ji kese tax ndax jëf moom bu boolee yooyu yaar mooy defe nañ ko na ko shariha rëdde te kay def yàlla doon ko tax di def kon dëggal na ak jëflanteem ak yàlla te yàlla dina ko nangul insha allah su ko defee nag lépp lu yàlla dogal ci moom rek sa yeboo mu neex ko ndax yàlla moom na xam ne moom moom lépp te ku am sax moomeel lu la ci neex sañ ko caa def kon nag lépp lu yàlla dogal ci moom rek na ko neex na ko gërëm yasiiru dana mujj xinda zaaka fa loolee aarifan di aji xam bihi ci boroomam xorrantey as gor waxay ruxoo te lu dul yàlla xalaa wéet na min xal bihi ci xolom ba nee na su defee li ñu wax daal day mujj xam boroomam bu baax a baax kumpaam denca mu mujj di koo xam ne jaamub yàlla rek lay doon daal di goree ci moomeel ak ak cofeelu lépp lu bokkut ak yàlla ndax lépp lu sopp lu bokkut ak yàlla rek loolee mu sopp daal di koy bëgg a moom su demee nag kon ba su demee nag kon ba nga xam ne yàlla kese moo nekk ci xolam yàlla kese la bëgg yàlla kese la geesu su boobaa kon gore na ci lépp lu dul yàlla ca ba mu doonee dëgg-dëgg yi jaamub yàlla loolu nag mooy xéewal gu rëy rëy fa xabbahu te sopp ko al ilaahu buur ba wastafaahu te mu tànn ko li xadrati xuddoosi jëm ci péeyub sellaa kon ba waji tabaahu te mu taamu ko ku dem ba àgg ci mel noonu nag moom suñu borom da koy sopp tànn ko taamu ko boole ko ci ñooñam loolu nag mooy cër bu rëy rëy boo xam ne des koy war di wut di ko jéem rek te di ko ñaan yàlla borom bi dal xadru bi la kem nazman mbir mu mi aw way laa yaf yi du matale bil gaayati ca dayo ba wa fi la si waaye nekk na ci li nga xam ne dakartu foo tudd naa ko kifaayatul ak doy nee na kat foofu laa yemale téere bi du ma wax ne nag téere bi indi na lépp lépp la soxla ci mbirum diine ndax diine dafa yaatu ñaxute jàngale ci benn téere rawante na bu gàtt nii waaye nee na daal li ma wax moom mënees na cee doylu ku ko jàng te xam ko bu baax a baax daal man cee doylu abwaatuhu ay bayitam arbaxata achara fukk laa ñeent tasiru danañu jokk maxasala si mi etin ànd ak ñetti téeméer xaddu rusuli te mooy li mupp yonante nee na booy wàññi bayit yi dana war a mat ñetti téeméer ak fukk ak ñeent muy li mu jonante yi ñoo xaw a wuutee ci li mu jonante yi am ñu koy jàppee ñetti téeméer fukk ak ñett wala boog li mu wax moom mi muy ñetti téeméer ak fukk ak ñeent waaye boobu wuutee amul solo nee na nag téere bi moom noonu la toll ci ay bayit ñetti téeméer ak fukk ak ñeent sàmmaytuhoo tudde naa ko bil mursidi ci aj jubal ja al muhini ja aji dimbalee xalaat daroori yi ca la mënta ñàkk min ulumi diini ci xam-xami diine ñu bari ñu koy tuddee ibnu hashir rek te fekk na ibnu hashir mooy ki nga xam ne moo taalif téere bi waaye moom ci bopp mi ngi ko tuddee al mursidu al moyen xalaat daroor yi min ulumi diin la nga mënuta ñàkk xam sa diine daal lii mooy téere ba la cay jubal di la ca dimbale ba nga xam ko bu baax fa asalu kon maa ngi ñaan an nafa jariñ xeetu yonante bi bi si ci téere bi xalaat dawaa mi ci sax min rabbina tukkee ja sunu boroom bi jaahi sayyidil anaami ci daraje sangu mbindeefee nee na maa ngi ñaan yàlla mu def téere bii muy téere boo xam ne xeetu yonante bi dañ ciy saxoo jariñu ba faaw xadintaha jeex na walhamdu cant ga lillaahi aji sax la ñeel yàlla alxasim may aji màgg salla yàlla na dolli tedd nga wa sallama te yàlla na dolli wóolu xalal haadi ci aji jubal ja alkarimi ji aji tedd en téere bi jeex na maa ngi delluy santaat yàlla mu màgg mi naa ko tàmbalee woon ci njëlbeenu téere ba te di ko ñaanaat mu dooleeti salaatu salaamu ci ku tedd ci ku tedd kooke nga xam ne moo xamoon yoon wa te di ca womate mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam képp koo xam ne rek déglu na kaseet yi lu mu néew néew bu ñaanal ki ko doon def ngën ci njëgal ngën ci yërmaane ngën ci tawfiq ngën ci taalibe ga ñu gën a gërëm ngën ji muj ko rafet ak pajug aajo faaw bi xurmati xadimil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiya xan wa nafaxana bihi amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain lii mooy téere bi tudd al muqaddamatu al xiziyatu fii nag la tàmbalee bismillahi irrahmani irrahim alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla rabbil alamina kay borom mbindeef ya wa ashhadu te maa ngi seere ni an naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jenn aji bokkaali la ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ni anna muhammadan naka muhammad abduhu jaamu bu yàlla wa rasuluhu tey ab yonenteem mooy ndawam salla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu wa ala saairil ambiyaay ak ci mboolem ñañu solo wala mursalin ak ñañ yónni wa ali kullin ak ñooñ kenn ku ne wa taabiina ak way topp ña lahum ñeel leen bi ihsaanin ànd ak rafetal ilaa yawmi diine ba bis penc sëñ bi taalif dafa tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim mooy tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne mooy xéewal xéewal yi matale yi ak xéewal yu jagoo ci ñenn ñi mbaa nga ne xéewal yu dijj yi ak xéewal yu sew yi mbaa nga ne xéewal yu àdduna yi nga xam ne moom ñëpp la ko maasale ba ci ñi weddee kay mooy sax muy arrahman ak xéewal yu àllaaxira yi nga xam ne koo jagleel rek ña gëman tey topp muy arrahim dafa tàmbalee ci bisimilah jooju le ndax li yonente bi ne woon mbir mu am solo mu ne suñ ko tàmbalee wut bisimilahi du am barke mbaa barke ba day manqué mu teg ci sant yàlla mi nga xam ne moom rek ay bóor daal di yeesal nag pas-pasu lislaam te mooy seere ne yàlla rek ay buur boo xam ne jaamu ga day am njariñ ñàkk gaa jaamu am lor seere it ne Muhammad ab jaamu la bu mu yónni muy ndawam julli ci yonante bi julli ci mbooleem ñu yàlla yónni te am ndigalul jottali ak ñi ak ñi yàlla wax yu te néew leen ngeen jottali ñañu xamal aw yoon te amul ndigalul jottali mooy al ambiya ñañu xamal aw yoon bu ñu war a aw te wax leen ñu woote ca boole ca mooy almursalo ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp yal na yàlla boole leen teraanga ak jàmm ak képp ku jéem a roy ci ñoom di rafetal ba bis penc rek yal na yàlla boole ci loolu amma baax du daal gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa yaqul dana wax alhamdu jaamu yàlla ba alfaqiru bi aji aajowoo illallah jëm ci yàlla taala kawe na abul xasani abul xasan mooy dàkkintalam xaliyun xaliyu mooy turam almaliki yi kay ko jóg malik asaadili yi kay ko jóg saadil xafara yàlla na jéggal allahu yàlla la ñeel ko wali waaliday ak ñeel ñaari waajuram wa mashaayixihi ak ay sëriñam wa ixwaanihi ak ay mbokkam wa saairi ahli sunnati ak mbooleem ñooñ sunna al muhammadiyati say ko jóg muhammad gannaaw sant yàlla julli coonte bi day xamle boppam nee na moom ab jaam la boo xam ne yàlla rek ko ñor ñu koy dàkkantali abul xasan tam tudd aliyu muy muy jaamoo yàlla ci ngirum al imam malik dëkk-dëkk bu ñuy wax saadil mu ñaan nag yàlla jéggal ko jéggal ay waajuram jéggal mboolem ay sëriñam jéggal mboolem ay bokkam jéggal mboolem ñi nga xam ñoo nekk ci sunu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu wax nag mooy haasiyi lii muqadda amatu luñ jiital la boo jàngee muqadda wala muqaddi matul aji jiitu la boo jàngee muqaddi fii masaa la ci ay masala min al xibaadaati ci jaamu yàlla yi wa xayri zalik ak lu dul loolee xalaa madhabil imaami ci ngirum ilimaan ba maalikinte mooy malik ibni anas mi doomi anas raximahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla taxalaa kawe na li yan tafeex ngir mu jariñoo bi xaa ci moom alwil daanu gone ya wa naxwahum ak ku mel ne ñoom ci mag ñi ak ku mel ne gone yi ci mag ñi incha allah ndéem soob na allahu yàlla taala kawe na nee na lii day ab téere la boo xam ne maa ko taalif mënees na cee tàmbalee jàng jëm ca kaw nag bu fekkee da ngaa bëgg a jàng fiq andi naa ci xeeti jaamu yàlla yi andi naa ci itam xeetu fiq bi nga xam ne mooy jëflanteeg doomi aadama ci kaw suuf mel ne takk soxnaak faseek jaay jënd ak miraas kon daal nee na andi naa ci. yenn masala yoo xam ne ci wàllu jaamu yàlla la aju waaye yenn itam aju ci jëflante doomi aadama yi ci kaw suuf te lépp nag mu andee ko ci ngirum al imaamu malik damaa bëgg nag nee na gone yi nga xam ne seenum njàng soriwut ñu mën cee jariñu ak ku mel ne maa ngi moo xam ne njàngum soriwut it ba tey rek ñu mën cee jariñu la xastuhaa gàttale naa ko min kitaab yi ci sama téere ba al musamma bale buñ tudde woon bi humdati saaliki ci kenuk aji soobu kennul aji soobu xalaa madhabil imaam yi ci ngirum ilimaan ba malikin malik fil ibadaati ci jaamu yàlla ya wa xayri dalik ak lu dul loolu wa sammaytuhaa te ma tudde ko bil muqaddamati ci muqaddamatu ba yeneen xe jàng bil muqaddimati ni ma ko xewoon léegi al hiziyati bay ko jóg hizza lil jamaahati ñel mbooloo ma al azhariyati may ko jóg azhar mushtamilatan mbir mu ngi aji làmboo xalaa ahada xashara ci fukk ak benn baaban ci ay bunt ne damaa njëkkan taalif téere boo xam ne daa ko tudde woon xumdatu saalik ala madhabil imaami malik bil ibadaati wa xayri dalik téere mel noonu laa njëkkan a taalif ma jukkee ca bii nag maa lii dama ko jukkee ca booba ba noppi nag sàkkal ko turu boppam tudde ko al muqaddamatu al hiziyatu maanaam téere bu ñu mën a tàmbalee boo xam ne maa ngi ko taalifee ci sama dëkkuwaay ba woon ca keer ca xizza dafa askan téere bi jëme ko ci fa mu doon taalifee téere bi ci dëkkuwaayam ba ca keer ca al xizza foofu la ko askan jëmale moomale gi gi mu ko moomalee mbooloo ma ci ashar nag da leen koo dara jaale rek daa am daara joo xam ne moom daa nekk foofa ca keer koy tuddee ashar mu far ko dara jaale ña nekk foofu rek ndax seen njàmbaar ak seen taxawaay ci lislaam rek nde defuñ ci dara moom moo taalif lépp moom jëmmi téere bi nag nee na am na fukki bunt ak benn booy jàng ba ci biir da nga gis ay dog nag ñuy wax faslu dana am ci biir yu bare bari waaye bunt yi ci boppam moom fukk ak benn rek la bu jëkkee rek al baabu lii mooy bunt bi al awalu bi aji jëkk fi taxaarati ci laab day njëkk a wax laab ndax ndegam gannaaw boo weesoo gëm yàlla julli moo gën a màgg ci lislaam te julli balaa baax laab da ko jiitu kon nag mu njëkk a wax mbirum laab xaala wax na allahu yàlla taala kawe na ne wa anzal naa wàcce nanu mina samaay ci asamaan maa an am ndox taxooran mu di ab laabaa kon suñu borom nee na man yàlla maa wàcce ci asamaan ndox moo xam ne mu laaba laaba laab la nga xam ne daa daa boole laab ak mën a laabal kon almaaw ndox ak taxooru ma di ab laabaa kon maa mooy ma nga xam ne kaana nekk na taahiran di aji laab fii naf si jëmi boppam mu tahiran tey aji laabal mu tahiran tey aji laabal li xëyri yi ñeelu dul moom kama il baxri ni ki ndoxum géej wal biiri ak teen wal matari ak taw ida lam yataxayar ndéem soppikuwut chey un dara min aw saafi yi ca meloom ya asalaasat yet yet waxee te ñoom allawnu mooy melowa maanaam couleur ba wa tax ba ak cafka ga war riixu ak xet ga bi maa ci loo xam ne yan fakku dana xobbiku mooy dana deñ xan hu ci moom xaaliban ci la gën a bari kallabani ni ki soow wal xasali ak lem wal bawli ak saw wal xasire ci ak ay xayta ndox moo xam ne nee na laab na te mën a laabal boo ko bëggee xam mooy ndox moo xam ne daal melowa soppikuwut cafka ga soppikuwut xet ga soppikuwut ci dara loo xam ne mëneesoon na koo moytu ba du ko laal lu mel ne soow jotewute ndox dara lem noonu saw noonu xayta noonu yooyu jotewuñu ndox luy tax ñu naa mënuñoo tàggoo ah kay mën nañoo tàggoo jotewuñu dara lu mel noonu nag balaa ndox laab te mën a laabal day mucc ci yu mel nii yëpp yëpp yëpp de bu fekkee la ko sopp moom yàllaa ko booleeg moom mënis ko woon a moytu moom du ko yàq daal ñu ko leeral ci kanam waaye nag ndox mi moom balaa nekk mu laab te mën a laabal daal da ngay xool melowa cafka ga xet ga dara bañ caa soppikoo ci loo xam ne mëneesoon na koo moytu ba du ko laal moo xam day ndoxum géej nag mbaa day ndoxum taw mbaa day ndoxum teen mbaa day ndoxum seyaan mbaa mbaa sax mi glace bu ñu bàyyi ba mu ruy rek loolu lépp teewu ko baax fa in taxayyara ndem soppiku na shay'un dara min aw saafihi ca meloon